da ngay gis ñu dem ci suñu armeel yi benn waay boo xam du kenn ni la teg nañ ko ci loxoy diw ngay yuuxu yow looy yuuxu waa ji moom wóor nañ la moom xamut loo xamut wax ju neex rek lay wax waaye wóor nañ la moom lu mu wax lu dul jébbal nañ ko boromam waxul dëgg te mat naa bàyyi xel bu baax ndax bañ tàmbalee rob yàgg na de.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 mooy bëgg rekk kenn ku nekk gën a góorgóorlu ci boppam dana am solo lool kenn ku nekk gën a góor góorlu ci boppam di defal sa bopp ay dog ngir ëllëg boole kook di fàttaliku sa bokki jullit sa kemtlayel kàttan am na ci ñaan yoo xam ne suñ borom du ko delloo te mooy ñaan goo xam ne dangaa toog ci wéetaay sa xel nekk ci sa mbokkum jullit nga ñaanal ko moo xam kuy dund la moo xam ku fi nekkul ndax loolu yàlla dong nga tax dara ci ngistal niwu ci jataay yii ñuy am muy nenn waxtu nga sëgg ko ci portable ñaari waxtu am na lu ko gën loo xam ne mën nga caa fàggu yiwu àdduna ak àllaaxira looloo taxoon Sëñ Tuubaa doon yee ci nu xamal ni nu genn nokki moo gën a foor urusu ngalam genn nokki gu doomu di nokki te noo yooyu yi nag daa am ab lim buñ la ci jox boo xamante ni ni genn gu génn du duggaat loolu itam mat naa bàyyi xel bu baax a baax bis yi dinu romb talaatay tey yii di la 7 mai fii ci Madina ñuy fàttali ko way dawle talaata jii du del siwaat ci àdduna janeen talaataay ñëwaat yooyu itam mat naa bàyyi xel bu baax a baax loolu mooy tax waxtu wu ci nekk nga góor-góorlu ci nga sëf ko ba mu diis ak jaamu yàlla bis bu ci nekk nga góor-góorlu ba bis bi fees dell ak aw yiw weer wu ne at mu ne dana tax diir bi nga fiy ne mu yàgg ak mu yàggadi soo demee doo ko rëccu lu mat a bàyyi xel la te bàyyi xel bu baax a baax seytaane dañuy nax rek te mel ni nax yi nun mënuñu cee yow daf ni gëmloo yu taxawut day def ci suñ xel yi ay ay lay yoo xam dañ ci sukkandiku te benn lay wéru ci loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax te loolu lépp ak mën a yàqam mbokk yi seytaane suñ digg ak moom du neex mukk ci àdduna ndax yéene wuñu dara ci aw yiw lu nu mën a am ciw yiw lu mu tuuti tuuti seytaane xeebu ko yéenu yéene ko dana fexe ba ñàkk ko dana fexe bañ bañ ñàkk ko dëgg la danañ sonn ci lu baax waaye lu baax yooyu yi ñuy sonn seytaane day fexe bañ ñàkk ko ñàkk ko sëñ Mouhamed daana ko wax daana def wax ni def lu baax yomb na waaye amub yoo la jafe ndax day yàqu dam koy wax da caa jël exemple ni man ngaa defal nit lu baax waaye yoon moo koy digal ni ko xasal diw wax ko lu bon nee na kooka daat lay xas nga dégg ko nga ni man mi ma bàyyi baax na man defaloon naa ko naam nga naam nee na loolu nga ko defaloon yàqu na te nee na xëy na sax booba du moom waaye yool ci boppam moo jafe seytaane ci laxasu fexe ba romb la sàgg na la bañ laa nuyu wala fexe ba dara dox seen diggante nga fàttali ko la nga ko defaloon ba pare jëri ko mu yàqu seytaane daa fekk kuy nelaw ci taatu miir waaye miir bi dafa dafa daar bay bëgg a daanu ne seytaane soppaliku ku jëm mi doomu aadama yee ko ni ko jógal fii balaa miir bee daanu ci sa kaw kooku bi mu yewoo gis miir bi ni mel te ki ko wax yor jëmmi doomu aadama mu dab ko doon ko sant ndax jëf ju baax ji mu def mais bi waxee ba pare seytaane dañu ko mbaatu da ngaa defoon aw yiw laa ci jublu mu ni ko ah waaw li nga def de wax dëgg yàlla jëf ju rafet la mu ni ko déedéet damaa xam ne bu miir bi daggee daanu sa kaw boo dee da ngay dem àjjana loolu laa la yéenewut ma bëgg nga génn taatu miir bi te jëf ji noobal na leen fekk koo xam ne fi mu ne mën na fee loro ndax bu fi dee deewoon sayit lay doon ndax dee deeg accident la deeg bettaange la ñu gën a bàyyee xel xeeti fidaawu yi gaay yu baax yi sun borom yenke leen ko ñu yenke ko njaboot gi léeg-léeg na nga tudd cib lim gis ku ko rëy lu lool naa la lool moom mënuma koo toog ndax mën naa koo def ay ay pàcc te léeg-léeg mu yor appareil am toog kat def ci lu ëpp temps bi nga xamante bu yoroon kurusam du ca def xaaj ba te bu nee ci appareil bi lay gën a teewlu bu yoroon kursam mbaa mu yorub téereem fi mu toll nii bu ñu yoree appareil yi la ñu gën a teewlu buñ kàbbaree di julli seetlu ko bu baax a baax gis nga booy julli ci biir mbooloo mi fi mu toll nii fu mbooloo mi toll ci waxtaan xam nga ko boo sëlmalee rek mën ngaa dabee jëlu nga naan gaa fu ngeen toll dara ëmp la ci waaye fi mu toll nii boo xasee yor sa appareil bi ne ci biir di connecté fi mu toll nii gaa li ñuy wax déggatoo ci dara léeg-léeg ñuy wax ak yow sax nga ah, fekk wax ji lépp rëcc na la mooy teewlu gi lu fexe seytaane fexe ba yàqu bu ko defee itam nu gën a bàyyi xel bokk yooyee dem gis nga bii ñu leen mujjee gis ñu dugg ci seen kër yu mujj yooyee lu nu xamatu ci ñoom ngént la walla rafet njot waaye li ciy leer moom fi mu doon nii bëreetul su fekkee am na ñu ko yàlla xamloo yi nga xam ne leer na naññ ci ñoom wax loo wuñ leen ñun ñi demale ko fekkale rek nag ñoo ciy dem te li ci ëpp ay gént lay doon dama gént gis diw nit ma nangam dama gént nangam te seblaat daan wax ni gént moom bu fekkoon dana wax dëgg ba cëg lay dox waaye guddi rekk lay dox fekk am ko koy wax naa ko dama gént gaynde dama dàq seeblaat ni ko loolu jarut tiit ba nga yeewoo nga mucc waaye mat naa bàyyi xel bu ko defee nag foofa tëraay ba daa yàgg ndax ña demoon ba léegi ñu tëdd di nége mat nañoo bàyyi xel ca seen tëraay boobee kenn xamagut kañ la jëm ndax nun daanu leen fa fekki li fekk yaa ngi gis doomu aadama muy waaxut ci kaw suuf xamal ni bis penc ci taxawagul te li fekk bis penc ci taxawagul nag kenn xamagut fooy mujj moo tax suñ daan wax ni bul jàpp ni kenn la man li fekk romb la waaxu dugg àjjana yow góorgóorlu rek ci jaamu yàlla bu baax bañ a yàccaaral ci jaamu yàlla ndax ñii ñu àndal jaamu yàlla gu rëy gii ñu tàggoo seen bopp tax mat naa bàyyi xel bu baax a baax da daa mbokk yu toogoon ci jataayub Serigne Cheikh di waxtaan kacca mag ci ñoom ni Serigne Cheikh nun day sunum xel dal na sunu yaakaar feddliku na ndax ànd gin ànd ak yow da ko fekk sóonu waaye daa jóg diju ni leen jaamu ji leen yàlla jaamu lu ma leen yàlla saa bopp laay jaamul yàlla kooko yuuxu yuuxu ba fu baatam yam sëñ Cheikh bàyyi ko ba yuux gi dal sëñ Cheikh ne ko lii ma la wax loolu du ci solution yuuxu du ci solution mat naa bàyyi xel bu baax a baax dangay gis ñu dem ci suñu armeel yi benn waay boo xam ne du kenn ni la teg nañ ko ci loxoy diw ngay yuuxu yow looy yuuxu waa ji moom wóor nañ la moom xamut loo xamut wax ju neex rekk lay wax waaye wóor nañ la moom lu mu wax lu dul jébbal nañ ko boromam waxul dëgg te mat naa bàyyi xel bu baax ndax bañ tàmbalee rob yàgg na de waaye ñu néew a néew ngay dégg ci murit yi nga gis ñun la diw bañ koy rob diw sàngam teew na ci ñu néew dama xamul suñuy bët a neexut wala dana amut basira waaye ñu néew a néew lañu noonu yi mu néewee nag dalay wan ni la du lu yomb ba kuñ joo ci biir bàmmeel rek ne la sëñ bi nangu na ko te ki koy wax moom yàgg mooma ci yem biñ ko xëppee suuf la ci noppee xam dara kon li war a def mooy góor góorgóorlu ci jaamu yàlla suñ kemtalayel kàttan te rafet njort nag ab jullit moom rafet njort rek la war a def du ñaw njot benn yoon waaye na fekk lim man moo di ko def ndax foofu taxawaay ba yàgg na te fii lañ koy lijjante séddaleem téere ya mooy fii lañ doon fexe ba sa téere boobu man nga bokk ca ñay laajte sax siraat suñu borom da ko bàyyi wala déet ndax jéggin wu gaaw yàlla na suñu borom boole waaye daal nanu dollee góorgóorlu ci suñ kemtalaayal kàttan ci sellal suñ diggante ak suñ borom li nu yàlla sant ci jëf ñu sellal ko li nuy séq ci suñu diggante ñu di ko leeral tey mooy tonte suñu biir rawatina nag bokk soxna yi gëlees na leen a farlu ci jaamu yàlla dama xamul nag ba xam dañ leen a déey lun nu déeyut nun ndax bari na yu ñuy def te duñ ko yëgal seen yaram dama yaakaar nag li ñu dul dem ci armée yaa tax waaye bés bu ñu fekkoon rab yaakaar naa bu ñu del siwaate daañu ñu cocc te sëñ daa waxoon ni bu ëllëgee yomal xiyaam lii dem ci jigéen ñi ci àjjana lu néew la demoon na ba misaal ko ni mi ngi mel ni déem goo xamante ni daa daa meññ ba bay suut ñu wutub tax def ko ca ron déem nga jox la yat ni la bàccal lay dugg ca biir tax ba ci dem ne ëllëg yomal xiyaam lii dem àjjana ci jigéen noonu lay toll loolu nag jar na fet di liwaat sag laxasaay gën a góorgóorlu yow lim ba lu néew néew fexeel ba bokk ci góorgóorlu képp moo cay tax bokk waaye lu ñu wax nga ni garawut gaa yee ko ñàngal waaye suñ borom ku bari yërmaane la sadidul iqab si tawlu yàlla ku tar mbugal fi mu ni loo fi gis ci àdduna rek ak lu mu niru niru lu metti kenn defu ko yàlla ko def noonu la bari yërmaane nag waaye mat naa bàyyi xel bu baax a baax bis yi daal bis yi loolu dong lay jariñ mooy bésub jàngat la ñi ma àndaloon teñ dem anoñu sa xel laaj la waaw ñooñu fim doon nii ci luñ ne loo yaakaar ne ca lañ ne loo yaakaar ni mooy solution foofa yow lu ci doon sa pexe fii waaye les aller rek lu ñëw nga ni garawut lu ñëw nga ni garawut ba ni sarax ci biir bàmmeel danga nga rëccu loo doon jaare àdduna de foofee nit taxaw ni yaa layta nii kuntu turaba aka neexoon ma doon suuf sun boroom jëri ma ma dem ay jëf rekk ko waral te yàlla nee na duma tooñ sama benn jàmm dem ba ni sax tooñ sax dama ko araamal sama sama bopp te noonu laa ko araamale seen diggante ngir ak maanu tem nu boole nag ku mel ni Sëñ Tuubaa boole noog jabootam gii nga xamante ni nii moom lañu suñ borom séddee bokk yi ko amul dara da nga waaye teg nañ ñu ci condition yuy tax ñu amee dara yóbbu nañu ci barab yoo xamante ni nii ku fa yëngutu lu mu tuuti tuuti suñ borom barkeel ko ndax lan mooy barab yoo xam ne mucc ci nax-naxi àdduna nga xam ne environnement ba set na barabu jaamukaay yàlla la te mag ñi waruñu woon suuf suñ mën a bayee suuf su connecté wu ak bunti suñ boroom yi la ñuy wër suñ borom daa bunt yu tiim jaam ñi mag ñi loolu lañ doon wër waaye waruñu woon suuf su neex a baye wala su neex a sàmme mbaa su bari ñax déedéet wala boog du suñ tubaab waa këram bokk kon nu doon lee góorgóorlu bu baax a baax ci ndigali suñu borom yi te bàyyi xel de lu gaaw a gaaw la lu gaaw gaaw a gaaw loo xamante ajuwut ci ak yi ab àpp la boo xamante ni nii ki ki ko yor waxu la àpp bi fu mu yem moo ko waraw dal la yem da dox ba mu yàgg rek mu ni kettet kepp te nit ñi mag ñoom fi ñu ne lu sa dégg garaw garaw dañu lay suul continuer àdduna moom du taxaw dara du taxaw dara lu fi nit rëy rëy dara joo fi mën am bis biñ la dencee balaa dellusiwaat nga dégg fi kuy céetal ak kuy ngént te moom lu waay mën a wax moom mooy sa lépp coupé na moo tax bii nii man lañu war a góor góorlu ngir jëmbi yàlla jox lépp yàlla dana jafe nag waaye dañuy xeex ak suñ bakkan xeex ak saytaane xeex ak bànneex jukki sa loxo ci àdduna boo bokk yi dëddu àdduna du dara lu dul lépp loo xamante ne nii soo ko defee bu ëllëgee mën na la indil jafe-jafe nga bàyyi ko loolu dong ngay dëddu àdduna dëddu àdduna du lekk lu naqari du sol lu tilim dangay gis fii fi mu doon ko yor mbubb mu xotti ko ba pare gën a bëgg àdduna ñëpp gis koo xamante ni këram foo jaar jàll waaye moo gën a bëgg àdduna ñëpp gis koo xam ne ab la yor waaye xamewu ko ku mbaarum sàkket yëg ko gis koo xam ne lu seer seer lay sol wata bu baax lay sol waaye xolam bi dara ci àdduna néew du def dara te yàlla taxul sàmm du dara lu dul lu la mën a indi jafe-jafe bu ëllëgee nga génn ci loolu doo ngay sàmm yooyu nag moom lañuy ñuy jéem a jëmbat ci sunu bakkanam def ko ay ngànnaay jaamoo ko yàlla ndax mooy ñu tax a mucc bu ëllëgee kon nan góorgóorlu bu baax a baax ci jataay yu mel nii góor góorgóorlu bu baax a baax ci xalaat yu mel nii nga xamante ne ni waxaalewuma suñ bopp waaye dañ ci jariñ ñoo xamante ne ni fekkuñu leen fii ak la ñoo xamante ne ni sunu gannaaw lañ la ñuy ñëw sëñ Tuubaa joxoon na soxna Faati Ja ak ñaan koo xam ne ñeent fukki lixlaas la guddi alxames mu ne ko boo ko defee ba pare da nga naan yéene naa ko jullit ñi nga xamante ni ñoo ma jiitu woon ak jullit ñi nga xamante ni maag ñoom bokk di dund ak ñi nga xamante ni sama gannaaw la ñuy ñëw suñ borom defal leen ko seen téere yu nee na loolu dana tax bu ëllëgee képp ku la nan mooy toq ab àq suñ borom danaa ko bàyyi ko maa lay fay ndax kii daa farlu woon bay defaale bokki jullitam ñi nga xamante ni ñëwaguñ ndegam soxna Faat Ja lay wutal bunt bu mu jaaree nag parce que maag ñun ñi nga xam ne amuñu bàyyi bu mel ni bàyyi bu Faatija kon war na noo góorgóorlu bu baax a baax noonu itam la amoon ci yeneen yépp julli gi ñu julli ab néew muy guddi gi nga jëkk fanaan ci bàmmeel wala moo xam yàgg na fa fatiya lay doon ayatul kursi alhaakumu takaasur fukki lixlaas ak benn danañ ko jullit ab néew guddi gi mu njëkk fanaan ci biir bàmmeel boo ko defee rek ràmm nga ko su doon ko fa yàggit ba sa xel new itam foo ko defee bu fekkoon ma ngi ciy jafe-jafe suñu borom teggi na ko soo ko defalee ci sa bopp itam mucc nga yooyu yu am solo la te yu bare bari la yoo xamante ne ni mi ngi ci ndaxañ téefi gaay yu baax yi li ñuy daj ci ab dërëm buñ ko doon daj ci ay fàgguteef yoo xamante ni nuy musal la fii ak fa la ñu jëm mbokk yi danañ mujj waaye dana topp àdduna rek bu ko defee foofu lay wàccee sama kàddu di ñaan suñu borom mu defal nu njëggal saahiran wa baatina defal nu tawféex gàttandu nu ci liggéey bi yëngutu yi yëngutu suñ borom barkeel ko sëñ Moodu saa waxoon na sunu maam yi ni leen na war ngeen sant yàlla ndax boole naa leen ak ñoo xamante ni lu ngeen jëf lu mu tuuti tuuti ñu nangu jëf jëf kooku nag wax dëgg yàlla wàccoon ak ñun war a jéem bari la waxoon itam ni sunu borom du far day fay sun borom nee na du far day fay nee na jaam yi li ñuy def xeej jub suñ borom lañ koy jox xeej ba nag mooy xool lu mu ciy jàllale ak lu muy téye lu mu jàllale suñ borom fay loola noonu war na noo rus jëf ju jëfuwut ak ju manqué ak joo xamante ne ni tegiwut ci njàngalam sëriñ bi di jaar ci ay loxoom ndax wóor na nu xeej jub suñ borom kon nan góorlu bu baax a baax di fàttali bu baax a baax nag bisub sëñ Tuubaa bii di ñëw ci kanam di ashirina muharram luñ ci daan sonn ren nan am pas-pasu ci yéene sonn ci lu ko ëpp buñ àggee ci 1446 jii lu jëm la sëñ Tuubaa di am téeméeri at fee mu tëdd loolu nag du lu ndaw téeméeri at sëñ Tuubaa ci barab bee mu tëdd moom tem doon wax ni su ma demee Touba lu ngeen tàmbalee ti dana àgg waaye su ngeen yaa fuusee ba dem ba Touba dana mel ni demaluma leen wenn fenn te téeméeri at yu ne tàmbali waatub dara la loolee ñu bañ caa doon ñu des gannaaw te lu xew ci diggante bi rek dikk ga sëñ Touba dikk fee la bu sëñ Touba ñëwul woon Touba du mel ne bu sëñ tubaa tëddul woon fay tubaa du am baat yàlla xam ne bu sëñ tubaa ne woon ci waneen dëkk ci dëkk yii biir Sénégal wala bu ko génn baat bii tubaa am du ko am nii mu nosoo du ko nosoo sëñ bi mooy sunu kiiraay ci nekkam nekk ci barab bale te lool lépp ci loxoy sëñ Moussa la ko jaaral jaarale nu tuubaa mën a mel ak fu mën a mujj ndamal suñu Moussa ak ku ca mën a yab sa loxo nag ku mën a doon loolu nag war naa tax bis boo bii nga xamante ni bisub sëñ Tuubaa la buñ bokk ñëpp waaye ñëpp bàyyeenu ko ñu def ci ba koo xamante ni nii taxawoon nga ci ginnaaw di xoole sa xel dana ne ci dab yi ndax sëñ Tuubaa rek lañ koy defal te fu fi dara nekk fu mu fi mën a doon mooma fu mu fi mën a doon rek bu fa sëñ jëlee la fa doon ay xotti kese fay des loolu nag war naa tax nu gën koo fonk gën koo waajal bu baax a baax ca wàccaay yañ ko daan waajal du lu bees luñ cay defaat waaye liñ ci doon def rek la ñuy gën a dolli ba mu gën a méngoo ak ka tëdd foofee noo ngi jéggalu bu baax a baax yàlla suñu borom boole dimbali defal nu tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa taamu leen seen groupe Mouhalim Info ak sunu ay mbooleem plateforme Mouhalim TV mooy sunu chaîne YouTube lépp luy information générale religion politique culture société Mouhalim Info moo leen koy traiteel ci anam yu fiable leer na wóor na boole ko gaaw na l'information sur sur Mouhalim TV ba tey mën ngeen abone sunu page Facebook ngir lépp luy information waaye tamit Mouhalim moo ngi TikTok ngir lépp lu jëm seen ay information da ngeen koy am ci sunu mbooleem plateforme saa su ne